kon suñu kàddu alhamdullilah lañ koy ubbee di sante bour bi bu baakha baax ci fekke gim ñu may ak tal ñu fekke wat bis bi ba ñu mëna ñëwaat wuy ci wat suñu frère Fallu Diop di nuyu tamit suñu natango yi nga xam ne lañ fi dajalon daaw te ñuy suñu nawle di ci jital nuyo bi suma serigne suma xarit sëriñ Maara mbacké mu nek kilifa ci jotay bi

nit ñi reer bu neex indiwu leen fi ndax kenn ku ci nekk joxe nga sa dépense sa kër def fa reer def lépp waaye nit ñi sa jëmm moo leen fi indi sa jëmm li tax mu indi leen fi nag mooy kenn ku nekk la nga am ngay joxe waaye bu ñu lay delloo yi del séntu lu mel noonu taxawaay bi nga am sa digganteeg doomu aadama yi ma mën ko seede ndax da nga koo am ci man te ma xam ne ñii fi ñëw ñëpp say nawle lañ ay gor lañ taxawaay yu mel noonu nga am ci ñoom moo tax boo leen woowoon ci am pax sax ñu fekk la fa loolu nag dañ lay ñaanal yàlla mi nga xam ne ku àgg moo lay tax àgg yàlla àggale la fa nga bëgg a àgg ndax àgg lu jafe la ndax pepp dañ koo laaj ne ko àgg pepp ne man samay bokk yu bari des nañ ci àll bi ndax pepp keroog bañ ko bayee bi dag dagg di ko góob lu ruus fañ ko doon gobé bañ koy jaag amna lu ruus ta jaag ba bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko ba diko indi ci kër gi amna lu top bën sa ko ya wad ci yoon wi loolu wul bañ ko ci kër gi tamit ba ka jeeg ji jëlé dugal ko ci gën yi la top kuur ya aksi wul donte mo gëna a jege bañ ko tayé la top bën ya dem wul bañ ko tajé ab rër ci kër gi tamit ba ñuy tibb la topp bën bëni loxo yi wadd jege na waaye ak ba ñu reeree ba noppi sax ba ñuy gallaxndiku la toppaat ndox ma wàcc ci suuf demoon na bay dugg waaye ak siwut kon àgg lu jafe la kon yàlla ñu yàlla may àgg ndaw àgg rek mooy tax mu mën a réaliser ay projets am te ñun ñi fi toog ñëpp ay jeunes leaders lañu ndax kenn ku ci nekk am nga fayda am nga fulla ba kenn séenul la ci lu la sa morom di xeebe moo tax ñu mën a ànd li ci des nag mooy ñaan suñu borom mi nga xam ne moo mën a àggale mu àggale ñu fa ñu jëm ndax dëkk bi dafa am ci ñun yaakaar rawatina département bu Mbacké ndax maa ngi koy wax bët barki démb ci benn émission ma ne leen lépp loo fi yaakaar si beneen réew fi mu toll nii ku jógee fii dem États-Unis li ngay njëkk a def sama classe gi dañuy photo wu di dugal di wane lu nekk fu nekk nga milieu bu rafet bu nekk nga dem fa photo di dugal te foo mën a taxaw si àdduna bi garab gu rafet goo fa gis kaas bu rafet du malayka du junne moo fa ñëw def ko fa nit doomu aadama rek moo ko fi def kon li ma bëgg expliqué foofu mooy bu ñu bëggee suñu département mel ni département yëpp ñun doomu aadama yi ñooy tax ba département bi mel ko rawatina commune bu Touba bi ñu dëkk kër gi sax bu borom kër gi gënee posté fu borom kër gi mu dendeel boo amul sens sa doom yi fee la ñuy xaaraani jee nit nag da ngay am loo bëgg am foo jëm te ñun ay ndaw lañu te fi mu toll nii war nañoo tàmbalee xalaat ci suñu avenir u ëllëg fàllu nag ñu ngi lay remercier trop si lii nga xam ne chaque année nga may ñu occasion bu ñu dajee toog waxtaan soppante ay xalaat te occasion boobu yow yaa ñu koy may ñu ngi la ci sant di la gërëm di la wax ne am nañ benn yëg-yëg bu sori bu ñu am suñu diggante ak yow ndax sa taxawaay te yàlla rek laa koy seedeel ndax al yow ma naqati moo àlla waaye wal tukallimuuna aydihim gannaaw bu ëllëgee sa cër yi sax dañuy wax man du ma fi wax loo xam ne gaw ma ko li ma gëm mooy wallaay lansim xam naa ne sa jikko ku mu munta àndal ngorom des na loolu man lu ma wér la ku jóg munta àndal rek sa ngor ak sa taxawaay des na ndax nit ku baax la ku yëg nit la ku respecté doomu aadama la te ku nungoo ñàkk alalam la te du ci xalaat kon ñu ngi lay sant di la gërëm di sant tamit ñi nekk ci salle bi ñëpp di sant aussi Mara Mbacké mi nga xam ne aussi mi ngi suñu biir nekk kilifa am juddu am taxawaay mais teewul loolu lépp da kaa wàccee ba mën a ànd ak ñun dañuy détaillé moom si mbiru àdduna kon Mara tamit ñu ngi lay sant di la gërëm di remercier tamit ci bisu Kazu Rajab bi ñu nekk di sant. bu baax di ñaan ci barke sëñ Fallou Mbacké yàlla ñu yàlla may gudd fan gu mën a ànd ak wér ba ñu mën a réaliser suñuy projet ba yóbbu suñu département foo xam ne kenn xalaatu ko woon. di nuyu di suñu sëñ Fallou Fallou nga xam ne ni tey ku fi teew rek jëmmoo ma tax nga teew fi <coughs> muy ay firndeel yu bëree bëri yoo xam ne nii comme ni ko sama frère général Diène gay waxee. kenn ku ne fii ku fi ñëw ci kër nga bàyyi ko waaye diine bi ñu fi dajalee dafa bokk ci agenda yoo xam ne nii date boo xam ne saa su ne bu euh, bu bis bu jotee dañuy bàyyi yite yëpp ñëw teew fi loolu li ko waral mooy taxawaayam ak euh, bëgg gi nga xam ne nii bëgg na ko moromam yi nga xam ñi ngi bokk di yëngutu dans le département de Mbacké parce que tey ñi fi teew kenn ñàkkul kenn ñàkkul fayda amoon na am wala comportement bu mu amoon tey kenn du fi teew ci biir salle bi pour confirmer li général wax ñun dañuy yëngutu ci àdduna di jàppale président Macky Sall waaye boo ñëwee ci biir salle bi dañ ci gis ñoo xam ne nous ngi bokk si yeneen parti loolu nag day wane dimension Fallou Diop et muy exemple pour toute la jeunesse du département de Mbacké képp koo xam ne nga nekk dans le département war nga di ko bàyyi xel di jéem a xool def nga koy copier ndax li ñi yëngutu damay wax chaque fois ni passant la war doon moom modèle la ci ndaxte dundeewul politik am na métier métier boobu mooy tax mu mën a jàppale ñu bëree bëri ñi nga xam ñoo yëngatu ci li ñuy def kon ñu ngi lay sand bu baax ci turu ndaw ñi nga xam ñoo nekk Mbàkke yëpp di am contentement lool teew fi di ñaan suñu borom nag mu may ñu kàttan ak tal bañ mën koo fekkee at yu bëree bëri bu kenn bañ a manqué mënuma terminer te santuma nuyu ma tamit sama frère yu jóge Touba bu mu libee lu mu limee général Diène Gueye ak ñu fi teew ñëpp je crois que bu ma tegee nuyu bi ci loxoom danañu ko mën a jàllale waa Touba yëpp waaye tamit di nuyu di ziar la presse ndax ñun activité yi ñuy def yëpp bu nu ñi ni ñuy xamee presse tax ñu xam ñu on a tendance des fois di leen fàtte doonte kenn mënu leen a fàtte ñu leen di ziar bu baax di ziar ñëpp yaa ngeen jëf. ñu ko daan defee chaque année mooy que wooteeti nan na ñun kat man li taxoon ma ne du ma jël kàddu sax mooy bis bii dafa naan fekk ma nekk ci suba si. ba ci guddi àndandoo ko ñoom ñëpp ndax galas man ak galas moom yaakaar naa waa dëkk bi yëpp xam nañ ne dootuñ ñaari jëmm lan waaye ñaari jëmmi kenn lan ndax koo xam ne lu muy dugg dana la ci wax ak yow même lu jëm ci wàllu boppam lu jëmu ci hors de la politique sax lu bokku ci bokk politique sax lu muy dugg dana ci waxtaan ak yow kon kooku yaakaar naa ni dafa am feneen loo xam ne seq ngeen ko moo tax suma frère la rawat na waajuram bu jigéen bi nga xam ne Eh, moo jiitu ci àjjana boole ñu mu jàpp ko bëgg sëriñ Abdou Lahad jàpp lool di ko doxal donc looloo tax tey jii mu am tolof tolof lool ma yéexee ñëw ngeen jox ma kàddu ma bëgg ma ma ma décliné ko bañ ko jël waaye duñ defaat leen comme ni defoon daaw rek santaat ñëpp rek suma frère yi grand frère yi wax di général ak sëñ Mbacke Faye mënoon yem képp ci ñoom buñ waxee rek waxaale nañ ñëpp waaye. en tout dañuy féliciter ak di sant képp koo xam ne déplacé wu nga sa kër te faalu tax la jóg nga ñëwal ko ci bisam bii xam ne war nañu wax ne juróomi at moo ngi ci ren ñu koy def kon yàlla na ko yàlla gën a may tawféex may ko gudd fan ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak li mu bëgg am ci àddunaam ak li nga xam ne moom la ko euh, moom moom la bëgg Serigne Touba ak Cheikh Modou Fadal borom bis bi defal ko defal ko mbooleem képp ku fi teew ak képp ku amoon yéene teew fi foofu daal la amoon suma kàddu yoo xam ne loo laa ci bëggoon a jàllale muy kàddu yéen ak kàddu sant kenn ku ne di ñaan nag président Macky di ñaan président Macky yàlla may ko euh, si mandat bi maanaam may ko euh, tawféex may ko nag yokkute may ko ba li mu réaliser sept mu réaliser double am ci cinq yi loolu laa amoon lu may sant kàddu yu may sànni di sant tamit sëñ Fallou mi nga xam si ni moo sabab jotaay bi ndax euh, ndaje moo gis mu ne rek am na sabab donc moom mi nga xam si ni moo sabab jotaay bi nii ànd ko gi ni ak pas-pas ñu ngi koy ñaanal rek yàlla yokk xéewalam ba incha allah chaque année muy gën di ko man ñu net incha allah comme ni ko sama gars yi waxee léegi ñuy gën di ko man di fekkee nem sob na yàlla euh, bu yëpp jàllee nag am na ñu ko junj léegi euh, ñu fi daje bëri seen Fallou ñu dajale jëmm ji waaye kenn ku si nekk da am say yëngu yooyu xam si ne ca nga nekk di ci yëngatu te buñ dajee fii tey quoique kenn ku ci nekk am nga sa reeru bopp comme niñ ko waxee donc buñ fi dajee ginnaaw yàlla ak jëmmam ji te ñiy wax fu ne Fallou Diop daanaka ne Madakaw donc ñun ñi nga xam si ni ñoo nekk Madakaw te li nit ñi di seede ci moom ñu man saa ëpp luñ ca mën a seede mooy liñ wax ci moom rek léppay dëgg ndax côté financièrement euh, personnellement ak looy mën di gis si moom sawar na ci ci joxe ko te bu koy jox du xaar sax nga laaj ko ca donc loolu moom mi ngi ci moom léegi ñu ko ci sant di ko ci gërëm léegi nag li ci des mooy ñun ñii nga xam si nii ñoo fi daje te heure bi daaw ñu waxoon ko fi nekk ay acteur politique nekk ay xale ñu xool nan lañ mën a organiser woo ba jël en mais suñ avenir suñ devenir bu dëkk bi surtout bu département bi ak bu commune bu ville simple bu Touba bi ville centre bu Touba bi donc ginnaaw ban sante yàlla daal ba pare li ñuy def mooy nañ takkaat jàjj yi président jël na def na prestation de serment tey li si des mooy kon dem liggéey baat muy pouvoir muy opposition instant bi clivage yi nañ ko teg nii de côté ñu fexe xool na lañ man a fexe ba suñ dëkk bii ni nga xam si ni mooy Touba nga xam ne mooy suñ Sénégal comme ni ko Fallou Diop di waxee ñu fexe ba mu jag te comme ni ko général Diène Guèye waxee léegi rek jag-jagam moom génnut suñ loxo yii nii taw feex rek jërëjëf ndax ci sama jëmm lool sama frère général Diène Wahno kolegi sering ko léegi Serigne Mbacke Faye wax ko bisub tey jii du fàllu yi rek a koy màggal du murit yi dong ñoo koy màggal partout dans la monde fépp foo dem ci àdduna bi jullit yaa ngi koy màggal te ku nekk am nga ca teraanga waaye tey mboolem ku bokkal département de Mbacke seen man ci sama teranga. li taxit ma ndikkal bi maam ci tuuti ak ci sama Serigne Fallou man tuddewuñ na sëriñ Fallou directement sëriñ Fallou Mbacke lañ ma tudde moo xamante ni si ne sëtu borom daaru musi la waaye sama waajuru jigéen daf maa wax ci làmmiñam dëddu na ma tey ne ma koroog de bi ma la defee ci sama biir bii damaa dem ca barabu sëriñ Fallou bu na sama doom ji bu juddoo nay góor te yàlla nañ ko tudde Serigne Fallou këll biit li tax mandi ko bari woon na coow lool ci histoire ndax sama waajuru jigéen ki ko jur di soxna Awa Ndiaye dañ ko yëkkati woon addee Serigne Falloo jàppoon ci loxoom bi mu jàpp ci loxoom di ko jox Serigne Thierno Diouf Lambaye mu jur sama yaay këll bii rek la ko boole loon te Serigne Falloo ne woon këll bii mbooleem lu Serigne bii lekk dee ko ci def korog bi mu génnee àdduna rek bari woon na coow lool yàlla dogal sama waajuru jigéen doon na ko sama diggeeg Cheikh Abdou Lahad Faye li mu wax léegi ci Serigne sama waajuru jigéen dafa gane àdduna Serigne Abdou Lahad tudd ko yàlla def mu am ab taaw muy jigéen Serigne Abdou Lahad tudd ko korog Serigne Thierno Diouf Lambaye Serigne Abdoulaye da koo ganasi bi mu ko ganasee mu jël ak buum takk ko ci sama waajuru jigéen ci doxam ba mu ñibbi na ko jox naa la ko àddee Serigne Touba sama waajuru jigéen waaw korog Cheikh Abdoulaye moo jël buum ko jox ko sama waajuru góor man bis ba mu ko joxee buum gi ci lay doog a teg bët ci ma jur di Massamba Diop dëdd na ma tey sama waajur woowa nag moo jàpp ci loxoom boole mag moo jàpp ci loxo seex Abdou Lahad Faye mii bis ba mu ko njëkkee xam ma ne ko Cheikh Abdou Lahad la tudd dana ko xaw ma sa jikko waaye jàpp naa la ngir jëmmi seex Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad mii ñëw ci moom ne ko galas mii da du dara comme ni ma koy tooña rek di ma tooña tey moom mu ne ko jàppal ma ko te Cheikh Abdou tax mooy wax ji mu wax léegi tey jii sama waajuru jigéen woowa tey dëddu ma lu ma ko mën a def ci àdduna rek naa ma baatu na Bali ba rek kay dellu si ci man ndax la ma ne woon jàppal ma ko rek lii dafa rëy lool ci sama jëmm man nag damaa judd ci ak murit xam sëñ Tuubaa maanaam boo xoolee ci sama jëmm rek dikk faa dëkki da jàpp ne bëgguma dara fekk na kenn gënumaa bëgg lu baax waaye li ma bëgg lépp dama ko jëmale ci tubaa Tuubaa yéen ñiit ma gis seen xar-xari kanam xam ne kenn ku ci nekk li mu xeex li ko Sëriñ Mbàkke waxee léegi assumé nañ suñu responsabilité dañu politique waaye nag na nit ñi xam ne Sëriñ Fàllu fi njëkk jaayante ci yoonu murit te ko rek ba mu jaayanteeg Senghor daf na woon ñii wut réew mi képp ku ma ci njëkk a fekk ci péncam sama péncam bàyyi mi wax ba tudd dëkk bi rek ma jàppale la koroog Mamadou Dia bi mu ñëwee ci dëkk bi wax na ba yeggal te tudd Touba Serigne Fallou yëkkat teraanga jox ko mànd ak moom dem Senghor koroog ba mu ñëwee dana Serigne Fallou boo may jàppale may Fallou rek ma lay jàppale ci dëkk bi Serigne Fallou yëkkat teraanga jox ko mu delloo ko teg ci teraangaam jox ko teraanga kenn du ko delloo waaye du ko yëkkati teg ki leen jox sañ Fallou kon ñu xam ne politique bonut Serigne Abdou Lahad Mbacké 81 1988 dana woon képp ko war Abdou Diouf rek war nga Serigne Touba te moo ne booba dana laaju ndoom ak tànk rek te dëkk bi rek a taxoon dañuy ay gone ñu xam ne lee am Makka am Arabie Saoudi am France am Angleterre am faneen ay doomu aadama rek ku fa yóbbu duy jinne duñu malaak sëñ Touba naa tëblewuñ ne ñu ngi wér téereem yi bu baax ne dëkk bi mboolem li ñu di jéggaat bis dana ma sa ñëw ñu di ko wute fii ñu bëgg a bokk ci sabab ba looloo ci dugal sëriñ Mbacke mii sama xarit dugal ci sama frère général Dieng Gueye dugal ci Cheikh Abdoulaye Faye dugal ci ñun responsable yi nekk fi yëpp waaye kenn ku ci nekk ci ñun ñi sëñ Tubaa teral na la loo xamante ne si na bu la neexoon man nga cee dund ba fàttadoo politique waaye rek li dul jeex ci dunduk doomu aadama mooy fexeel ba dëkk sëriñ tubaab bi na nga ci xeex ba ñëpp xam ne xeexoon nga ci ba nam war a mel mel ko ndax la am màkk am Arabie Saoudite war naa am ci dëkku sëñ Tubaa bi ñaan na ko te fi dikk ban ko xamee nag ci lañ bëgg a bokk ci sabab bi tax ñu sol suñu daal engagé wu na danañ politique waaye ku ne xam na ne kër taxul ñu du ko def oto taxul ñu du ko def ndax suñu waajuree yaa fa suñu woon liggéeyal nañu ko ba bàyyil ñu ko fa dañoo gëm ne sëñ tubaab na duñ ko deseel rek tey jàpp nañ ne buñ jaaree fi dana sotti rek ñu jaar fa tey nag sama xol dafa sedd waaye bisub tey bii am na lu ci sëriñ Abdou Karim Mbacke wax ñun ñëpp ñu du ko dégg képp ku mën a jox loxo wax sëñ Abdou sëriñ aboon na ko jox loxo ku ko mënut nga dem ci diggante barabu sëriñ Fallou bi ak buntu kër sëñ Fallou jàpp naa ne lépp loo fa ñaan rek yàlla mën na koo nangu kon rafet nañ jot na ne guddi tey ji lépp lu waay ñaan rek suñu borom mën na koo nangu ñun de yàlla nañu sëriñ tubaa def ñu bokk ci milliardaire yi sëriñ Touba yi ndax gudd fan gan tokki milliard moom amul njariñ son la rek te suñ tubaa moom liggéey gi am murid di saxoo ci moom dëgg ndax li fi def lépp ala la def liñ fi gis ci tarang lépp xaalis a ko def tay seigne touba serigne Muntaxa mi di khalifa seigne touba bu man woon milliardaires yi xaajaguñ te ñoo ngi ñëw ci kanam yàlla nañ ci sëñ tubaa boole sama xol sedd na lool ma ngi leen di sante am sa cooy mi Assane sambu wax nako legi 1998 la ko xam bi match Brésil France bi defe naa ba 2019 21 naa la ñaar fukki at ak ben bima ko xamé legi waye sama digé ak mom kenn mësuñoo atte kenn mësuñoo jubale it te ku ko xam na ko wax kenn mës sa jubóole am satu cooy galas te liggéey rek ñu boole woon akub dëgg bañ naa ko ba su ma duggee dakaar du ma fanaane ci kenn néegam laay fanaan koroog bi mu duggisee ci dëkk bi ci man la njëkkee loolu rëy ci man loolu te ànd bu rafet rek kooral waral moo ma boole génn ñi fi nekk ñëpp it Tapha Touré mii sama nawla la di sama xarit ànd ak soxnaam ànd ak ay rakkam ànd ak ay xaritam jóge ba Daaru Musi mënoon na faa toog màggale ko fa comme ni invité ay xaritam waaye at mu ne day bàyyi yitteem yëpp dikk fii màggal si ko ak man mu rëy ci sama jëmm lool di càmm ñu aji gay sama soxna ma di ko sant bu baax fàllu Diop mi noonu di sant ñëpp ñu fi nekk di wax ne sama xool dafa sedd ba képp koo xamante ne si na tudd ma la ci jataay bi xamal la bëggoon naa laa tudd waaye di wax ne guddi tey ji yàlla na ci daje ngërëmal Serigne Fallou yàlla na ci daje ngërëmal Serigne Touba te bu déwénee kenn ku ci nekk ndax man day am naa lu ma ci façon te rafet naa njort ne sëñ Fall dana ma ko jox maa waxoon ci kas rajo bu daaw ne balaa kas rajo bu ngeen dellu siwaat yàlla na ma sëriñ Fall mayub ñaareel maa ko waxoon man invité naa leen yéen ñëpp gannaaw suba dañ may mayub ñaareel ca jumaay Mbàkke xewar bi waaw dañ may ñaareel invité naa leen ñëpp maa ko ñaanul Fall ñaanaat naa sëñ Fall fii nag ne na yàlla na xéewali yokkaat baa am lu ma ko yore waaw boobu dikkee toog saa bi nga xam ne moom it wax dëgg yàlla waaw sëriñ awa Mbàkke mii sama gannaaw di sëtu borom daaru musi moom mooy l'homme de social fii ci département bi képp kun jàpp police ci commune bu Touba moo lay génne génne na ay nit ci dëkk bi ba taay te xamuñ fu mu bokk kun yóbbu gendarmerie moom moo la fay jële numéro bi koo soxla mi ngeek moom fayeekuwut lijjantikuwut ci dara lu lijjanti jaam ñi rek ko fi bàyyi te luñ mas a soxla ci moom rek dikk na rek kon daal sant naa bu baax sant naa bu baax a baax a baax waaw sant naa bu baax bu baax di dool rek Moustapha Moustapha Samb yow da ngaa waroon ñëw jël fii ak kaddu yow sama digg ak yow gaaras daaru musi la woon yàgg lool sant naa la bu baax yow it di am kontaan sëñ jilu xuma mais am na lu am solo lu may bëgg wax fii ajjuma ju nekk ajjuma ju ne barabu sëriñ Abdou Khadir laay naan café kee moo ma koy jox jilu xuma mu ne ajjuma ju ne nag laa wax café gi njëkk ci sama gim ñu barabu sëriñ Abdou Khadir laa koy naan jilu xuma mais ma koy xelli sa ajjuma mu rëy ci sama jëmm lool Moustapha mi sekk chaque àjjuma ñooy jullandoo ci jumaay Serigne Touba ji moom it muy nit ku baax lool seedeel naa la ko fi ci kanam mbooloo mi di lu rëy lool ci sama jëmm yàlla nañu Serigne Touba wana lawaat àjjana asalaamaaleykum. may may jël ci moom engagement bu rëy ñëpp di ma dégg Touba laa dëkk filaa laa juddoo filaa laa yaroo ku ma xam tamit xam Touba man fi laa dëkk aw ma lenn lu dul sëñ Baara sama adduna tamit sama bët bi xooluma ko lenn lu dul Cheikh Mamadou Lamine Mbacké waaye kii maa jël ci moom engagement lépp lu ko aw fiitam may na ko song. lépp lu ko aw fitam may ci saahiram na ko song baatim bi moom na ko bàyyi ci ñun barke Cheikh Mahamadou Layoune Mbacké am noonam du kontaan man yaskurullah yaskuru naasa te maa sayyib naa ilaa bi ma alina waxiwuma bakkan da jàng naa ba dañ ak réer wallahi lu ko aw fitam may na ci dugg da nga wér da gudd fan liggéey sëñ Ceerno Juuf Lambaay bi dañ ci feeñ bi ñëpp xam feeñe ji barke Serigne Touba guddi gii nag la ngaa def lu rëy Cheikh bi ñu ñëw di ko laaj ne ko ana lan moo fi des dañ leen daba li fi des mooy joxe joxe teraanga rek tey ñi fi jaar ñëpp regg nan te sëñ Tuubaa daan na wax naan jàmbu regg bay raxasu lu mu ñaan suñu borom mu te gaa yëpp yi raxasu ñaana nan na sam xel dal da ngeen xam tamit lépp li ngeen bëgg da ngeen ko am ci kàttanu Seexul Xaddim dëkk bi dara mucc fi lu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa doo nga fi ne koo gis ñaa ëppaloo ak fu mën a doon sëñ Tuubaa doo nga lay xalaat liggéeyal ndokk bi leen sëriñ bi nattoo ngeen bëgg koo liggéeyal baax kilifa gu baax gi nga wax saa yu ñëw sa laa koy fekk waaye nii mu mel la mel dara soppeeku ci moom nii la mel waaye ñoo ngi ñaan li sëñ Tuubaa séddale ci ay ay deretam yàlla bu ko ci kenn ëppale galas nag la ma lay wax la daloon yonente ba yàlla na la dal da ko wax dafa dikk suñu borom ni ko damaa bëgg juróom suñu borom ni ko xool yàlla ni ko moo la may juróom naa la tegal juróom mu ko damaa yàlla gu mat sëkk mu ko dinaa la tegal ak nangu ndax jaamu yàlla lu màgg màgg buñ ko nangul yàggee day màbb mu ko damaa nga lool mu ne ko dinaa ci boole ak wér aw def ma nit ku tabe mu ko dinaa la may nga yor loo joxe loo tabe tabe te yoroo loo joxe yàggee da ngay mu ko damaa bëgg nga def ma nit ku am fit mu ne ko dinaa la may doole ndax loo am fit am fit amoo doole ci jooy rek ngay dëkk mu ko damaa bëgg nga defa ma nekk nit ku mën a muñ mu ne ko dinaa la boole dëkkandoo baax loo mën a muñ mën a muñ te ma dëkkandoo yoo wax yàgg sa muñ kaay jeex wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen